jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey ji mooy yàlla tànnal na isaaxa jabar nettali bi mu ngi cosaanoo ci tawret bi njalbeen nga saar fukk ak benn aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba fanweer ak benn saar ñaar fukk ak ñeent aaya benn ba juróom benn fukk ak juróom ñaar léegi Ibrahima mag la yàlla barkeel na ko ci lépp benn bés Ibrahima ne surgaam bi ko gën a jege demal ca sama réew ca sama kër baay wutal fa Isaaxa jabar bu fa yóbbu Isaaxa waaye indil ndaw si fii noonu surga bi jël fukki giléem yu sëf alal ju nekk ci alul Ibrahima jëm ci réew ma Ibrahima jóge fay mbokkam dëkk bi mu agsee ca béréb ba mu sukkuloo giléem ya ca wetu ab teen ca peggu benn dëkk ndaxte mi ngi doon guddi muy waxtu wi jigéen ñiy rooti noonu mu ñaan yow aji sax ji sama yàllay sang Ibrahima ngalla nagul ma tey jii maa ngi nii taxaw ci bëtu ndox mi jànqi dëkk bi di root si janq bu ma wax ne ko doo yenneku sa njaq maye ma naan mu ne ma naanal ba noppi ma wëggal la say giléem na kooka di ki nga jagleel sa jaam Isaaxa laata muy ñaan ba noppi sax gis na rebeka gàddu njaqam di ñëw fekk rebeka moomu di doom betuwel te di sëtu milka ak naxor mi magu ibrahima ndaw su taaru la woon di ab janq bu séyagul naka la wàcc ba ca seyaan ba duy njaqam yéegaat surga ba daw daje ak moom ne ko dooma may tuuti ci sa njaqali ma naan mu ne ko ankay sang bi xaaral mu wëggal la giléem yi ñu naan ba noppi dag bi waxul dara waaye mu koy xool muy duy njaqam di sottil giléem yi ñu naan ba màndi noonu mu jël ab jaaro bakkan ak ñaari lam yu diis may ko ko mu ne ko wax ma kan moo la jur ak itam ndax mën nanoo dal sa kër baay mu ne ko betwe ma jur doomu naxar ak milka teg ca ne ko waawaaw ñax maa ngooñ maa nga fa ne gàññ te it mënees waa ji nag su sant aji sax ji daldi ne cant ñeel na aji sax ji sama yàllay sang Ibrahima manit aji sax ji boo mat na ma ba sama kër bokki sang jànq bi nag daw dem nettali waa kër yaayam la xew lépp Rebeka amoon na càmmiñ tudd Laban bi mu gisee jaaro bakkan bi ak lami wurusi mu daw gàttanu ji surga Ibrahima bi mu ne ko yow mi aji sax ji barkeel ak sil looy toog ci àll bi waajadal naa la ab dal te giléem yi am nañu fu ñu nekk ñu indi ndox ngir surga bi jàng ay tànkam ñu tegal ko lekk ci wetam waaye mu ne déedéet duma lekk mukk kay te waxuma li ma tax a jóg labat ne ko kon nag waxal noonu surga bi wax sama soxna sang saarata nag dem na ba màgget door a amal sama sangu doom ju góor doom jooju la jox li mu moom lépp sama sang nag giñloo ma ne bul jëlal mukk sama doom soxna ci biir jigéeni waa réewu kanaan gi ma dëkk waaye demal ca sama kër baay ca samay bokk nga jëlal fa sama doom soxna mu wéy ci wax ji ne bi ma agsee tey jii ca seyaan ba ñaanoon naa ngir li may dox antu ñaan naa ki may may ndox ma naan teew gi samay giléem doon jigéen ji may wut bala maa naan ba noppi Rebeka ne jimeet gàddu njaqam léegi nag ndegam nar ngeen a rafetoo ak sama sang tey sàmm kóllëre xamal leen ma ko ba mu leer su ngeen ko mënarul it wax leen ma ma xam nu may def laban ak betuwel ne ko mbir moomu de ci aji sax ji la jóge te amuñ ci dara lu ñuy wax rebeka ngoogu jëlal te dem muy sa soxnaas doomu sang ni la ko aji sax ji tegtale noonu surga ba génne ay gànjari xaalis ak yu wurus booleek ay yére jox rebeka càmmiñ la ak yaay ja itam mu may leen alal yu takku ba loolu weesoo mu door a lekk daldi naan moom ak ñi mu àndal ñu fanaan fa keroog ba ñu yeewoo ca ëllëg sa surga ba ne bàyyi leen ma nag ma dellu ci sama sang noonu ñi woo Rebeka ne ko ndax dangay ànd ak waa ji léegi mu ne waawaaw ay waajuram bàyyi ko mu dem ñu ñaanal ko na sa askan yaa Rebeka ak i dagam yu jigéen jël seeni ëmb war ci giléem yi ànd ak gaaña bi surga bi ak Rebeka fa Isaaxa nekkoon Rebeka teen seen Isaaxa muy ñëw mu daldi ne surga ba waa waajee ci àll bi ñëw jëm ci ñun kana surga ba ne ko sama sang la de Rebeka daldi jël muuraay ga muuroo noonu surga ba nettali Isaaxa li mu def lépp ba loolu wéyee Isaaxa yóbbu Rebeka ca xayma ak yaayam Sarata muy soxnaam di ki mu bëgg te di ko muñe yaayam ndax fekk na mu faatu fii la nettali bi yem nanu jàng aay bi bëgg naa aji sax ji ndax sama woote ak samay dagaan ñu ngi àgg fi moom saboor saar téeméer fa juróom benn aaya benn